fa tey femme baa nga fa ba tey. Mm-hmm. ba tey nii bu fekkee ni euh, mu ngi fa ba tey. ok bougé mm-hmm. mais ñi xam Adji saar rek a fa nekk. Adji Sarr euh, bi mu njëkkee soupçonné ni Adji day day seet. Mm-hmm. day nettali daf ko dàq. dafa dàqoon Adji Sarr. kam moo dàqoon Adji Sarr. moom day xadi waaw ci si nee nañ dàqoon na ko. Adji Sarr novembre bii la commencé waat di fa liggéey. jëkkëram mooy insister puisque xam na ni aji taxawaalu bu muy taxawaalu. ñàkk am fu mu nekk fu stable motax parce que même buñ nane yayam yayam bu Grand Yoff du yayam bëgg jur yayam bëgg jur kat la woon gañu na ok boobu ak léegi aji dañ koy dénkaane ok mu joggé jifeer mu dem Pikine mu mhm. joggé Pikine ñoo Grand Yoff joggé Grand Yoff ñëw ci fam bobu mais tout le temps elle avait des difficultés ba fan lañ ko wara mëna fat d'accord donc xam nga ni euh, nante yi mhm. genre xalé yu mel nonu mo leen di intéressé ñu def ci luñ ci def mhm pour éviter lolo mhm. ibrahim Koulibaly mi nga xam moy mooy jëkkëru Ndeye Khady moom Ibadou Rahman la mhm. buñ koy buñ koy présenter non ci niñ ko mën présenter présenté waaye yërmande la jiital ci aji mhm. boré ci aji témoignage yëpp dañ la naan aji yi sur le plan humain nit ko am yërmande la surtout si xalé dafa tak ci sen xalé bu ndaw mais c'est vrai ñun ñi ñëpp mëna ñu wax ni bëss bi nga nar a mëno def dara ba nga rëcc jour boobu ñom soupçonné nañu Adji Sar am na lu muy préparé ndey xat yi dañ na dafa doon préparer mom urgence yi am ak hôpital motax mercredi. mais décidé woon ni bu jógee hôpital dina taj Adji dina débarrasser wu ci mom mais natou bi njëkk na ñew bala mom muy jël décision boobu anyway si c'était à reprendre si c'était à refaire je pense que tout le monde mënu nañ dalu mm-hmm. def yëf yi d'une autre manière mm-hmm mais sur ce plan là bi may wax ni bi mu len tàggoo ni fay ñëw bi mu woyé Sidi Ahmed Sidi Ahmed la la l'erreur qu'il a fait fay dem ba dugg ci biir kër gi Sidi Ahmed Sidi Ahmed dugg ci biir kër gi dugg ci biir salon bi maa ngi vidéo bi nga xamné kérok bi ñu préparer xam nga sen affaire yi ñu koy teug ban ban ban mois est-ce que aussi image image en début janvier en début janvier hein? mën naa la envoyé vidéo bi ah mën la envoyé en début janvier en début janvier commencé tëgg une opération. waay dégg ngeen témoignage yu madame tal mu ngi wax téléphone numéro téléphone boo xam ne Tigo la. nekkuloon numéro téléphone u Adji Sarr dañ ko jëndal spécialement pour la mission. ok Quand bi ñu ko ko jëndalee indil ko téléphone bu bees la Adji taxaw Sidi Ahmed di filmer muy testé moi vidéo yi ngeen gis. Kewoulo Séné ko ah, muy. Ah, muy muy fecc non mooy vidéo yi nga sa chaîne bi. parce que dañ ko indil téléphone bu bess téléphone bobu la wara défé mission bi mom lañ ko doon filmer moy testé. mais ci vidéo mais man lima jax jàpp ba paré ba paré man parce que xaliss duguna ok parce que jëndal nañ ko ay affaire parce que elle a accepté la mission. vidéo fan la ko défé ci biir salon bi la ko filmé. fofal ci biir fu mu liggéey wa wa wa ñun dañu tëj seen. waaw mais mais mais adissa naka lañ ko jëndee téléphone bu bees. mom téléphone bi mu yodd ci wax ci dil bi. ñu né ah. téléphone bi may levé la ko doon def tellement que téléphone bi baaxul. téléphone bi mu doon wuyoo. ak biñ ko jëndal bu benn téléphone bi mu doon wuyoo. waaw kéro da wax na Sidi Ahmed ñew na Sidi Ahmed ñew ñewal amna ko pour ngeen yóbbu ma. waaw mhm. téléphone iPhone 6 am la yor haut-parleur la koy teg bu ko defalee haut-parleur dafa am problème son dafa daanu won téléphone bob ok kër gi il faut ñu expliquer leen ñun dem nañ fa mais erreur bi ñu def tamen moy yeguñu ci kaw terrasse bi kër gi du étage du immeuble ben terrasse la. terrasse la terrasse la rez-de-chaussée la. d'accord légui yow so dawé nga yegg ci kaw terrasse da ngay seen nit ki di daw di jadd ci koñ bi. Mhm. nonu mo taxone Ibrahima non seulement dafa yek ci kaw mu aji mo yek ci kaw Ibrahima taxu ci di dégg li wax mhm. mais aji bu mu génnee Ibrahima génn nako jëm ko top mu làqu ci ginnaaw ben auto mhm. gis ko mu ñukoy duggal ci quartier mais li tax mën la cette enquête là ça me laisse sur la faim mhm. parce que fi auto bi garé mu ngi caméra wu Goodreads mu ngi ne pang ci kaw auto bi fi auto bi garé caméra Goodreads Goodreads way bu ñu exploiter woon image boobu dinañ gis toutes les personnes yu ñëwoon jël ci Adji Sarr la moo demu ñu fofu aussi les avocats d'Ousmane Sonko c'est la mooy merci beaucoup c'est ça. Oui, les avocats d'Ousmane Sonko les avocats aussi. merci le le droit sur la protection euh, des données personnelles. Mhm. moi, image la plupart des temps les gens gardé pendant 8 jours. ok. Si 8 jours passent, la plupart du temps on est effacé. Comme On a la réglementation au Sénégal mais sur le plan international ça se passe comme ça. donc dans les 8 jours s'il y a un fait délictuel ou criminel qui a été signalé. Mhm. et que nous avons les caméras sont susceptibles la gendarmerie aurait dû réquisitionner ces caméras là. pour nous image. ay images. mais wax n'a la ni ci dossier on n'a même pas les réquisitions de la de de de téléphonie. mais c'est aussi c'est le problème là aussi. ak ñun li ñu xamee sunu gendre gendarmerie bi mais mais mais Yves sunu section de recherche bi Yves waaw amee mooy lan bi nu taalalee ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ñu ne ko yow ak naka nga def pour génn bi ñu la violé ba pare ba ngay dem dafa ne dama woo dama woon euh, dafa ñële ñële dafa woo jak Jakarta comment on appelle Jakarta euh, buy mhm. joxe chez Kat chez Kacha mu ne ñoom ñooy ñoo ñoo ko ñoo jël si mooy livreur de ne ko mais livreur yooyu naka la ñu mën a transporter nit mais gendarmerie section de recherche dafa la sama ben xarit mu tudd Sidi Ahmed Mbaye Law mais livreur yi boo fay aussi dañ lay yobbu bon mhm. man xawma lolu parce que boo leen fayee surtout heure couvre-feu moom loolu la wax mhm. léegi bi mais lolu dañ lay yobbu ci kaw couvre-feu bi jotagul lolu ama couvre-feu loolu après euh, non Adji Sarr moment couvre-feu la 23 heures mais attends am na ay xamanteni ñu ngi ñu ngi circuler ñu ngi circuler waaw après couvre-feu aussi lolu aussi léegi léegi léegi biñ ko laaje la joxe Sidi tudd Sidi Ahmed Mbaye mhm. ñu ne ko jox ñu numéro Sidi Ahmed Mbaye mu joxe numéro Sidi Ahmed Mbaye ñu wo Sidi Ahmed Mbaye mu ñëw parce que d'ailleurs elle était moom doon accompagné. Euh, moom moo doon accompagner Adji. ok mais Sidi Ahmed Mbaye li tax ma enquête bi dafa am ay problème mhm. parce que tout officier de police judiciaire. Mhm. lolu c'est le législateur qui lui concède ça législateur mo la may loolu. Mhm. am nga droit ma tase ak yow ma ne nga ne ma DJ Yves laa tudd. sans aucune raison. mën naa la mettre en garde à vue pour 24 heures pour lu wax vérification d'identité. ok d'accord ma tas ak yow ci mbedd bi man hmm. OPJ la officier de hmm. police judiciaire la am naa droit me téye la vingt quatre heures dugal la ci mbaal bi même même day même dama bëgg vérifier sa identité su ma la wanee sama pièce d'identité je peux vérifier ça antécédent est-ce que tu étais recherché mon double ci fichier yi est-ce que est-ce que est-ce que parce que nous mën na am quarantaine fait qu'il est il est sur le fichier des personnes recherchées ok pour officiers de police judiciaire vous mu comment ku mu taseel droit de jël la hmm. vérification d'identité il a le droit de garder pendant 48 heures en plus raison hmm. dossier pour grave ni, bu indi sécurité problème sécurité nationale bu indi hmm. nit ñi di aucune mesure de garde à vue n'a été prise à l'encontre de personne d'accord Eva parce que bu ñu jëloon uh-huh. Sid Ahmed Sid uh-huh. Ahmed uh-huh. garde à vue

non euh, Ndeye non Ndeye Khady moom Ndeye Khady moom. est-ce que moom mës na rencontrer Ousmane Sonko. merci parce que man du ma sama salon de massage. vraiment ku toll Ousmane Sonko. futur président dañ ko mën a parce que ku participer sa première élection nga nekk troisième. kooku tey bu ñu nee da ngay ñëw sama salon. sama salon de massage dinaa fexe quand même am côtoyer la. parce que aussi Ousmane Sonko. tey ci mbirum opposition fi mën nañ ne moom mooy opposant bi nga xam moom moo gën a fës ci Sénégal moo ci première position donc kuy ñëw sa kuy buy ñëw ci sa salon de massage war nga ko mën a jege quand même waxtaan ak moom pour mën ko merci parce que bu baax la loolu mën a wax maanaam bu baax la ba pare aji sa euh, ba pare laa daam la hmm. euh, ci biir waxam moom lim ci wax lii waxaat ci lii dafa bari trop je sais pas ba xam dafa amul est-ce que est-ce que bi nga waxtaan ak Ndeye Khady parce day xadi day xadi waaw bu amee bi ngeen waxtaanee yéen ñaar bu amee si groupe yëpp ku ci gën a rencontré Ousmane Sonko mhm. nday xadi la moom ci boppam nday xadi moo njëkk rencontré Ousmane Sonko pour la première fois mooy jour bi ne fa la fa njëkkee ñëw te mu tombé